xeexuñu ki téye nguur waaye ni mu yoree nguur ak ni mu sàgganee ba tubaab ëpp ak sénégalais ci biir senegal mhm. te boo demee réewam nekk fa tumuraanke mhm. loolu la ñu nekk il mu jóge fi te gëm naa ni suñu mag ñëpp loolu lañ doon xeex mhm. Cheikh Ahmadou Bamba tax ñu jëlee ko fi yóbbu Gabon loolu la doon bañ donc nu ñuy def ba suñu alal réew ñu téyel ko suñu bopp lañ cay lañ cay lañ cay téye nag moom ngay suuxatee sa mbay parce que tey soo bëggee def tam amoo mënoo mooy nga jël sa avion di wër di lebi ñu lay lebal xaalis di ci teg intérêt te du faj sa soxla te boobu jamono yow sa alal yëpp ñoom ñu ngi koy ñëw di roppet di kon suñu xeet yëpp ñun ñu ngi ko tënk ci loolu moom sa bopp yàlla réew mu ne def na fa lu luy wërsëgu réew mi mm-hmm. réew yi nag ëppalante nañu nit ñi ëppalante waaye Sénégal de gëm naa ne ñaan lañ fii ci ñu ñaan nangu na ndax réew moo xam ne am na suuf soo mën am nga géej sept cent cinquante kilomètres sept cent dix huit kilomètres ci géej hmm. boo xam ne jën gu baax jën bu fees dell lañ am nga pétrole am nga gaz am nga zircon am nga phosphate fii hmm. am nga ay ndaw li ëpp ci sa population ay ndaw yu bëgg a liggéey ndax ndaw bu jël gaal ba di risque dundam boo amoon lu mu liggéey fii toog hmm. réew moom lan moo ko manqué kon suñu problème yëpp foofu la ñun suñuy xeex loolu ñu tax a xeex su dul su dul woon loolu kenn duñu dégg ci politique